loolu lu am solo la ndax bis bu ñuy wootee Serigne Touba. Mhm. li ci jiitu mooy ab yar ak i teggin wax ndànk tey dox ndànk tey jëf-jëf ju baax. Mhm. ndax dafa am barab yoo xamante ni bii saa buñ jugee ngir di ko waajal jëmm ju baax. Mhm. sunu borom day ay yabal ay malayka ngir ñu fay wàcce yërmande mooy waa ande sikkara saalihaana tanzilu rahma mbooloo moo gis rek yàlla ak yonte bi ak Sëriñ Tuubaa tax koo jóg rek suñu borom dafay wàcc yërmandeem kon bis la boo xamante ni bii képp koo xamante ni bii yaa ngi jug ngir am pas-pasu dem ca bis ba na nga ànd akuk laab ànd xol bu set te boo demee rik la nga xamante ni moo la tax a jug te muy xaside yi wala alxuraan di nga fi jàng bu la wóoree mën ngaa jàng alxuraan na nga dem toog ca ñuy jàng alxuraan mm-hmm. ñu jox la jukki nga toog jàng bu dee xasida nga mën a jàng na nga dem ñu jox la jukki xasida nga mën a jàng bu dee ñay dem dem kuréel yi bu dee ñi nga xamante ni bii xëy na mu seenum njàng demul noonu mën nañoo seen kuréel toog def seen i salaatu ala nabi di ko def addi Serigne Touba Xaadimu Mustafaa sunu mbooloo yi nag yàlla dafa dogal ki nga xamante ni bii yaruñu ko ci am réew bu ñëw fi yar ko du yomb mm-hmm. ndax magum jëmm juróo ko jëndoo ko. Mm-hmm. mu ñëw ci réew mi paasaloo ko. Mm-hmm. kooku boo ko bëggee jël takkum buum yaakaar naa ne du yomb. message nga mën a envoyé nit ñëpp mën cee jëriñu. Mm-hmm. kenn ku ne xam aw doxin wa nga xamante ni bii moom lañ ci war a doxee ndax bari waa na ndaje yu ñuy ndaje ñun suñu bopp bari ñu fay jógee jafe-jafe am fa bari waa yu ñuy am bu ñu ko amee du benn du doon du doon benn bu doonee benn dootu ñaar. Mhm. wala bu ñaaree dootu ñett. li ñu ko defar nag mooy ñàkk ab yar te ñooy ñooy wane ñàkk yar boobu doo leen gis ci daayira bi. day ñu nekk ci leneen neex ba bis ñëw rek ñu wane pas-pas ak njàmbaar mbub mu rëy du ak murit. Mhm. tuba ju gàtt it taxut nga doon nga ñàkk doon murit. mu mhm. murit cib xol lay doon. yar cib xol lay nekk. waaye képp koo xam te ne li may faral di wax ni di waar ku dul waaru day mel ne nga dem ci armeel yoru xalam di xalamal ñi faatu sag bu may xala dagg waaye duñ dégg la ngay wax mooy moo nekk nag fii ci Argentine am na ñoo xam ne am nañu dégg-dégg ci boo leen soññee waaye am ñoo bi daanaka buñ ngeen leen ci teg lu ñaaw lay doon ñooñu nag alxuraan dafa wax ni ñi nga xamante ne dañoo nekk ci ab safaan mm-hmm. ba seeni xol def ay taasi bakkaar ba lëndëm ñooñu dara mënu ci ñoom dara. ndeysaan. muy xattama allahu ala xulubihim mhm. ki nga xamante ni bi dafa topp bànneexam sax ci ak mooy yàlla. Mhm. noonu ca ca du geesu. koo dem ba ab xolam day lëndëm ba kenn mënu koo waar. Mhm.